asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sangi waa daara ji dellusiwaat nañu ak yéen ci suñu fe ji boole bi euh, tabarakallahu euh, trentième leçon bi xarfu baa un xarfu baa un ba qarun ba qarun boo ko boolee baqarun baqarun mooy nag bi xaarun bi xaarun bixaarun tabaarakallaahu mooy ay géej bu as taanun bu as taanun boo ko boolee muy bustaanun bustaanun mooy jardin jërë ngeen jëf salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu